sëriñ Bassirou Ndiaye Dabaye mi nga xam ni ah, moo ñu tax a daje fii ñu nekk nga xam ni njabootam ñoo jot convocation bu bàyyi ko ci gouverneur mu woo fi njabootu sëriñ Bassirou Ndiaye Dabaye ngir defal leen CRD bu jëm ci gàmmu 2022 ci kër sëriñ Bassirou Ndiaye Dabaye waaw xam nga li tubaab di wax naan jaam ak pexeem waa yàlla ak dogalam Euh, ñoom euh, am nañu bëgg waaye waaye nag seen bëgg googu tamit ñun am nañu yaakaar ni li nga xam ne diggee nañ ko fii xëy na bu leen yàlla dimbalee dafa leen jàppandal yàlla mën naa sottal seenu bëgg-bëgg seenu bëgg-bëgg nag du dara lu dul lu yëwénal gàmmu sëriñ Bassirou Ndiaye daa bay kon ñuy sant yàlla bu baax di leen sant di leen ñaanal yàlla yàlla seen réussir daal euh, maanaam seen yéene daal yàlla def mu jàppani euh, ñuy sant nag bu baax gouverneur monsieur le ak monsieur le su sous ak euh, ñi nga xam ni ñoo fi daje yëpp nga xam ni dara taxu leen fee daje lu dul lu yëwénal gàmmu gi ñoom it ñu ngi leen sant ñoom ñëpp di leen gërëm ñoom ñëpp ndax ku leen dégg xam ni jëlañ ay engagement te engagement yi nga xam ne jël nañ ko ci gàmmu gi tamit wax dëgg yàlla xëy na bu leen yàlla dimbilee rek ñun suñu bëgg-bëgg danañu ko mën a am te bëgg-bëgg tamit du dara lu dul lu yëwénal gàmmu gi. xam nga ku tudd gàmmu moom da nga li ñu fi tax a daje ak ñi fi daje ñëpp kenn ku ne la nga yoree te man ko mu jëm ci gàmmu gi soxla nañ ko muy wàllu ndox muy wàllu. santé muy wàllu sécurité tout lépp rek dañuy bañ a lim di fi yàgg waaye ku ne xam ne tey ñi fi daje mu service yëpp kenn ku nekk la la fay andi nga nekk ci di ci yëngu loolu gàmm gi dañ koy soxla ndax ku ne xam ne nii kër ga wala boog penc ma mbooloo fay daje te mbooloo itam dañuy bàyyi bàyyi ko fu nekk te nag fu mbooloo di daje dana soxla sécurité dana soxla santé dana soxla service d'hygiène ñëpp kon nag ñoom ñëpp daje nañ fi tamit wax dëgg yàlla tamit jël nañ ay engagement te engagement yi ñu jël tamit wax dëgg yàlla am nañ ci yaakaar ni incha allah bu leen yàlla dimbalee danañu ko mën a mottali kon ni ñoom ñëpp tamit ñu leen ñaanal yàlla rek yàlla mottali seen bëgg-bëgg ñuy ñaan yàlla itam gàmm gi ñu dëgmal yàlla nañu fi yàlla bàyyi bañ fekk ko ak jàmm yàlla yàggal fi sëriñ Abdoulaye Ndiaye Daabay mi nga xam ni mooy xalifa sëriñ Bassirou Ndiaye Daabay yàggal fi sëriñ Cheikh Ndiaye Daabay Bassirou mi nga xam ni moo yore kàddu njabootu sëriñ Bassirou Ndiaye Daabay gépp nga xam ni tey moom laa fi teewal muy yónni ma boole kook boole ma ak rakam muy sëriñ Abdou Khadir Ndiaye Daabay boole ma ak rakam sëriñ Baye Cheikh Ndiaye Daabay boole ma ki nga xam ni mooy jëwriñu kër ga yore léppi gàmm gi muy sëriñ Omar Kébé Ndiaye Daabay ak ki nga xam ni moom mooy sëriñ Cheikh Ndiaye Daabay Cuun mii nga xam ni ku ne xam na ko ci taxawaayam ci kër ga ak sëriñ Bassirou Diogoy ak dongo yi ñu àndal yëpp rek. nga xam ni liñ fi ànd rek mooy ñëw fi ci turu sëriñ bi ngir waajal gàmm gi muy gàmm kër sëriñ Bassirou Ndiaye Dabaye 2020. gàmm gi sax euh, am na ñu naan nangam wala bokk ci atum sangam lañ ko tàmbali waaye ku ne xam ne ni sëriñ Mor Ndiaye Dabaye moom euh, ba mu gënee àdduna ak léegi ku ne xam ne ni da ngaa ñëw fekk muy gàmm ndax mi ngi gënee àdduna ci dëkk bu naan kër Ndiaga Mbaye euh, en 1891 bàyyi ko fii. 1968 fii ci kër Cheikh Dabay ñu decc ko fii ci këram gi ci kër Cheikh Moom Ndiaye Dabay ci kanamu jumaa ji nga xam ni ñun bu ñu bëggee wax ni sëñ bi atum sàngam la tàmbalee gàmm ah xëy na ñun dañuy à peu rek waaye sëriñ bi moom ba nga xam ni yàlla dimbali na ko mu gane àdduna ci la tàmbalee gàmm ndax koo xam ni ba mu amee sept ans la commencé gis rasulullahi dem ba am vingt et un ans jàkkaarug Seexul Xadim te ba muy jàkkaarug moom ñaari fan la fa def ba ñetteel fan ba Seexul Xadim yeewi ko ni ko demal li nga doon ah, wut am nga ko demal tabul bul wax teg mbindeef kon kooku képp koo xam ni njabootam nga da ngaa ñëw fekk ko muy gàmm képp koo xam ni sëtam nga itam wala ab taalibeem da ñëw fekk muy gàmm waaw kon moom noonu la daan màggale guddi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax li tax muy magal guddi gi moom sëriñ Moon Njaay daa bàyyi daf cee bind wax ni mawloolu Mustafa nasil faqri wal hurmi fiihi sifaun li daayil xalbi wal jismi wax ni yow ma xad wuli daa xayru man wuli daa yow ma xad juy daa atee bu neexali lii Cheikh Moon Njaay daa bàyyi bind jëmale ko ci gàmm jëmale ko itam ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon kooku ku bàyyi ku bàyyiwoon xel bis bi la ku bàyyiwoon xel gàmm la ku bàyyiwoon xel guddig naa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan ko dundal daan ko taxawee di ko déglee itam képp koo xam ne yaakaar nga ko ba daan wax ni tamit bis bi du xam tëleem muy guddig rasulullahi daana wax ni itam moom Cheikh Mawone Dia daa bay bis bi man def tële def waaye nee na sama bisu bopp su ma su ma mënee damay def su ma tëlee damay bàyyi waaye nee na bisu rasulullahi du xam sama tële man def tële def kon kooku noonu la jàppee woon guddi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam